waaw sëñ bi ñu ngi leen di fay nii salaamaaleykum wala boo waaw tàccu leen seen bopp yéen d'abord waaw tàccu leen seen bopp tàccu leen ngaa ko blâmer si seen tàcc yi nooy na de nu mu doon nii tàcc leen na sa wala bokk waaw di leen féliciter yéen d'abord di leen féliciter franchement support bi ci gannaaw donc ku amul fit bu gisee ak courage bi ak détermination bi li ay di wax suuf bu suufee moromam dañ ko jàll te franchement lii support bu ñu ci seen comme ni ko Paco Briz waxee voilà stream leen album bi donc may leen seen artiste doole loolu soxla leen quoi donc voilà di félicité ngaa ko franchement di ko félicité voilà di ko encouragé quoi parce que tamit gis mooy modèle de réussite la te dañ ko war a fësal fépp gëm-gëm la détermination la mën na nekk fii encore une que lii lii nii exemple la donc jeunes yëpp dañu war a gën ne ci lu waay mën a nekk ak lu ñu mën a doon bu ko gënee war na ci mën a génn nekk ci exemple tekk ci teral ci ay nit te des fii kenn teral yooyu kenn nag mu génn réew mi mais nañu gën ne avant ouverture donc voilà loolu daal laa jàng ci lépp et franchement modèle de réussite la encore une fois di ko féliciter di ko mu kawe kawe kawe kawe ci ci buntu yëpp ba mu suturaal ko mu mën ci suturaal ay doomu aadama yu bëri parce que loolu la ñuy ñaan donc félicitations encore une fois voilà war la sama gars yi ziar naa leen yéen ñëpp yéen ñu fi teew ñëpp donc waaw juste man ma wax xam ñëpp baaxul donc album bi j'espère que ñenn ñi am nañu écho yi ñu jënd seen CD xaw ma ndax déglu nañu wala déglu guñu donc je pense que album boo xam ne nii seen mature Baba joxe na joxewu na ci à 100 pour cent donc invité nañu si biir bi tamit def nañ li ñu waroon def je pense que yéen ñëpp kenn ku ci nekk boo ko dégloo di nga am satisfaction et que li nga doon xaar si Ngaaka Blindé di nga ko gis donc euh, di leen di leen di leen wax ngeen gën koo encouragé ngeen bañ a bàyyi quoi parce que fans lii lay jëriñ fans mooy ki nga xam ne nii da def concert mu ñëw dagg sa ticket nga génne projet mu jënd ko donc tàccu leen seen bopp Ngaaka 92 ñu ngi ci rob bi te xam naa ne fii 92 am na ñoo xam ne juddu ñu woon ñu ñoo xam ne juddu ñu woon 92 est-ce que mën ngeen yëkkati seen loxo s'il vous plaît merci beaucoup depuis 92 booy bi juddu woon non xam nañ loolu <laughs> donc depuis 92 ñu ngi ci génn fekkee nañu lu ne commencé ko danse. commencé ko ay di supporter suñu grand maa ngi fàttaliku am na dama amee Dabran si ñëw suñu école man dëkk naa ci ñu yi pour dem seetaan yi Dabran si ñoom Baxaw tey man ak moom ñoo bokk fu ñu toog tu vois ce que donc fekkee nañu mu ne fekkee nañu façon clash bu ne fekkee nañu façon ci génn bi gis nañu façon tendance bu ne mais dafa am benn affaire rek ma bëgg wax mooy. suñu labbi am na ñoo xam ne ils ont compris te am na ñoo xam ne ils n'ont pas compris mais am na ñeneen ñoo xam ne ils ne comprendront jamais te alhamdulillah Ngaaka Blindé fait partie de ceux qui ont compris wax ne man li gars yi wax rek presque laay waxaat àdduna bu ñu nekk nii nangu dafa doon wax ne doole jën ndox la dooleel waykat bi xam na kan la public bi mooy yéen tey Ngaaka bu taxawee fi mu taxaw ni nekkoon na ci ay guddi yu tar yéen ko taxawu te yàlla wanaat na ko jant yéen a ko taxawu Ngaaka bu nekkee ci kër gi yéen nekk ci naaj bi Ngaaka su amee lu ko metti yéen a tax Ngaaka su kontaanee public bee kontaan te loolu yëpp lan moo ko waral damay wax chaque fois bu ma doon waxtaan ak wan ni di kër ma ne la àdduna bu nekk nii lépp lu waay di def am ci xol bu sell barke allah ji fallu mbàkke amul dara lu lay mën téye pour nga dem sa yoon donc moom xolam sell na xolam laab na te bàyyi fàll te noonu nga mel maa ngi lay ñaan dara rek nga continuer ko mu ngaaka day seede naa ne ngaaka day julli ngaaka respecté na way juróom loolu laa bëgg bu ko wàcc benn yoon gis nga nit ñi ñëpp taxaw fii ni ngaaka ñun ñëpp ñu taxaw fii ni dama la koy waxoon te dama la koy waxaat ku la ci woo téléphone wuyu ko parce que ñii amoon na si mbooloo bi am na ci kenn koo xamante ne bu ñaanee yàlla nangu am na ci kenn koo xamante ne yàlla xaritam la parce que ñu la ciy oo yëpp buñ la oowee ñaanuñu la xaalis ñaanuñu la dàll ñaanuñu la yëre dañ lay encouragé ba pare ñoo la yàlla na la yàlla defal lii te nga bàyyi xel. lépp ñëpp ci yàlla ci même taxawaay ba sa pénc ngaa ko gënoo fi kenn ñoomu gënu ci kenn mel na ni comme soow ak ñuri ngeen ànd yéen ak ngaa ko bu la def te yàlla na jàmm yàgg maa ngi ñaan aw dund si barke allah ji fàllu Mbàkke yàlla na kawe sa njot te yàlla boo gis ne ragal boo géej laa nga boo demee nga nuyu ma ngay dégg booy nekk affaire <laughs> ñu ngi yàlla bu ñaata tiitar la am nañ seize ak gone lan ak ci way wax naa ci àdduna wax naa ci alaaxira wax naa ci nit wax ci hypocrite wax ci loof wax ci dof wax ci lépp lu nekk ci man incorrect neex na bokk ci li ma jëlee ci yow garab ci lekk neex na garab <laughs> garab <laughs> Milana la tudd benn brésilien la bu nekk Dubai. yes job bi nice na ñu ngi jaajëfal public bi teew yéen ñu teew rek bëgg ngeen tàcc seen bopp d'abord bu baax a baax a wax parce que artiste boo ko bëggee doo yem rek ci di ko support naan gaan bi nice da nga koy mandargaal ci sa teewaay da nga koy mandargaal ci sa jënd album da nga koy mandargaal ci teew concert Ngaaka nag dafa jóge ci ay période yu xaw a compliqué ne am doole boo xamante ne indi doole wane doole wan gaay ni artiste la liggéey boobu ngaa ko def ci biir studio bi def ko ci communication bi yéen a mën a ànd ak moom pour liggéey bi gën a mën a am jëm gën a mën a am doole ngaa ko yàlla na yàlla jàppale